xam ne ñoo ngi koy song wàllum yoon ci réew mi loolee dañoo bëgg mu dakk ndax ci fii ci Sénégal bëri na ñoo xam ne li ñuy wax ci wàllum justice xamuñu ca dara te nag am na lenn loo xam ne ko koo nangooti te nag mbir mi nag ma ngay bëgg ëppi loxo ñi nga xam ne ñooy def politique bu leen neexee mën nañoo def seen politique ba sàmba di sa demba waaye nag nañ si génne lépp loo xam ne jëm na ci wàllum yoon ak wàllum force de défense yéen kaay gi di Sud Quotidien wax nañ ci yeex gi nga xam ne yenn ci ay dossier dañu koy yeex ndax nee nañu fukk ak juróom-ñaar yi doomu Sénégal moo am ci réew mi te nag yi bu ñu ko compté lu toll matul si juróomi téeméeri magistrat loole nag kenn ku nekk la nga yor ci ay dossier loolee moo tax mbir mi di yeex yéen a kaay gi di bés bi magistrat yu sénégalais daal ñuy jubbanti ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ñoom nag nee nañu nekkuñu fi bara armé kenn maanaam nekkuñ lu ñu fi nguur gi ngir nag liquider li nga xam ne mooy ay homme politique yéen a kaay gi di Sud Quotidien Vox Populi ak Le Quotidien ñu xëy fekk fa waa Yewwi Askan Wi démb nag ñoom doon nañu càmbar élection locale yi nga xam ne moom la ñu génn ñoom Déthié Fall nee nañu nag ñoom seen bopp ñoo gagné li nga xam ne mooy élection yi Ousmane Sonko ne élection nag bu ñu génnee ka nga xam ne daal moo ëpp lu muy wax wër plateau yi di mbembe bi leer na leen ne kooku la ñu gañe Ousmane Sonko ne benn bokk yaakaar maanaam dañu leen gañe ci élection yi nga xam ne moom la ñu génn waaye nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci Yewwi Askan Wi suñuy maire ak suñu président conseil départemental dañu leen di boole taxawal suñu association maire Yewwi Askan Wi ba pare nag Khalifa Sall dina bokk ci liste ma la la amul lenn ci neexal Macky Sall wala ñu si a kaay gi Cheikh Tidiane Dieye nee na nag bu ñu waxante dëgg Macky sàll ci boppam nag jamono ji kenn wóolatu ko ci réew mi Macky a perdu la majorité sociologique Macky Sall a perdu la majorité sociale la majorité politique Macky Sall jamono ji na ko leer na jeexal na ci réew mi du sunuy kàddu dañuy nettali yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Déthié Fall nee na nag élection locale yi nga xam ne moo la ñu génn bu doon ay présidentielle la Macky dem na deuxième tour bu yàgg yàgg yàgg Khalifa Sall ne jaay doole gi nga xam ne moom la Macky Sall nekkee ci réew mi loolee ci boppam a jeex ñoom lu mu leen jaral nañu ko jaral yéen kaay gi di Source A nee na nag direction générale des élections ñoom nag dañoo bëggoon a woote ab réunion boo xam ne dinañu ko séq ak société civile bi séq ko ak presse bi séq ko ak waa Sénat ngir nag expliquer leen li nga xam ne moo jëm ci wàllum parrainage bi waaye nag réunion yooyee yépp direction des élections daf koo gàntal na réunion yooyu yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na li nga xam ne mooy parrainage bi waa France France Dégage ak waa coalition citoyenne le peuple ñoom nag lànk kandaare la ñu def démb janoon nañu tas ko do xabaar ca élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg la ndax Macky Sall daf koo teg naka ngir nag segg ngir xool ñi nga xam ne ñooy dem ci élection yi ak ñi nga xam ne ñoo si du dema te nag sax mbir mi waa CEDEAO dañu see waxoon lu leer yéen a kaay gi de la Tribune na Bougane Gueye Dany ak waa gëm sa bopp ak waa Yewwi Askan Wi ñoom ànduñu benn yoon ci li nga xam ne mooy parrainage bi Bougane Gueye nee na dina delluwaat fi nga xam ne a kaay Fall nekkal ko ci département bu Mbacké jamono ji nag ci yoonu bàyyi Pape Diop si la Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké nekk ndax nag yàggatul dara dana taxawal li nga xam ne mooy ab mouvement politique yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naan ñu liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen o jamono ji nag mer ñu ba maara day taali si ay jafe-jafe yu métte métte moom la ñuy dund loolu nag moo tax ni ki démb ñoom liggéeykat yi nekk seen o daan nañuy takk na xëy takk sagar yu xonq nee nañu nag kër gi ni nga xam ne moom lañ ko yoree yorinu bon woowee nag la bëgg nag mu daal di dakk yéen a gi di Sud Quotidien Quotidien xëy dañu xibaara naan ñu armée bu Sénégal ma nga ca àllub Casamance ba am na ñaari base rebelle armée bi jamono ji teg na ko loxo maanaam ñaari dëkkuwaay yoo xam ne rebelle ñoo fa nekkoon journal bii di Dakar Times xëy nag yàq musiba ak melengaan ki nga xam ne mooy Salif Sadio journal bi ne na Salif Sadio délinquant la waaye nag Salif Sadio trafiquant de bois la waaye tamit Salif Sadio trafiquant de yamba la Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de